lam yow yàlla yow yàlla yaa wàccee téere bi ci man mu di alquran nga digal ma ma yaa ma benn ci ñaari kuréel yi te kat yow doo forcé ngi nii ñëw nanu di tiitaru noonu la noonu sak yonent noonu sa diine fen loo sab yonent man nag maa ngi lay ñaan ndimbal la ma digoon te itam maa ngi lay ñaan tey jii seen jàmbaar yépp alak leen loolu moo di ñaan gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñaan ci barab bi ba tey rek jàmmarloo ba tey rek uh, roofaloo amagul wante mbokk yi xam naa dangeen ñu jéggal nag ndax mbokk yi ñu nekkoon ak yéen ci xare badar mu di gazwatu badrinil kubra ci waxtaan wi ñu génn gisoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa àndoon na ak waa Makk maanaa àndoon na ak waa Medina dox bi metti woon lool ci ñoom wante ba yàlla nammee ci ñoom ñu noppalu daf leen roof ak ngëmmintu ñu nelaw nelaw yu xóot noppalu lool ca nelaw ya gannaaw si gi yàlla wàcce na taw ndax doon leen jàmmat mar ak ndox mu ñu sangoo taw boobu di xéwal ci ñoom taxitam ñu sangu ca ndox ma naan ca ñu ca amee woon janaaba sangu ca taxoon na itam wàccug taw bi neexal na yoon wi ba seen fas yi mën a dox dox bu baax ba loolu mooy sabab jullit ñi jiitu yéeféer ya ca barab ba di badar wax nanu ne taw bi ni mu nekkee yërmande ci jullit ñi noonu la nekkee itam musiba ca yéeféer ya ndax dafa ngirool seen yoon ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko waxe woon moo jiitu si wante am na saxaabi yi bu ko wax ne ko nanu fexe ba dem ci mu joxoñ ko benn barab ci benn teen bu nga xam ne danoonu mën a root ca ndox ma sakk teen ya ci des yëpp nga xamante ni nag ñoom bu ñu ñëwee ñu mën a xeex ba pare di naan ndax mar eh, defet la ci xare ndax kiy xare soldaar bi bu maree dootul mën a tee xare wante wax nañ ne yéeféer yi ñëw nañu bi ñu ñëwee ñoom itam kàmpe nañu ci biir waxtaan wi waxoon nañ leen ki nga xamante ni moo songoon yonent bi sallallahu doon foon yaram wi mooy ki waxoon yonent bi ne ko danga ma gaañ yonent bi ne ko fayul te lam ci jublu moo di ne comme rafet na njortu ci ne mën na am bakkanam des ci xare bi mu ne balaa dee daal na yaramam jonjoog yaramu yonent bi sallallahu alayhi loolu itam doon tegtal bu rëy ci yonent bi bu koy wan ne ko ñi mu àndal sopp nanu ko bëgg nanu ko ñu ne nag jamono boobu nga xamante ni ñaari soldaar yi na nañu war a xeex yonent bi sallallahu alayhi wa def na xutba bu rëy ci biir xutba ba ñaax na ci nag jullit ñi wan leen ne leen xeexaleen yëkkati te xeex bi ngeen di def moom lañuy ñuy tuddee jihaad jaamu yàlla bu rëy la benn jaamu yàlla féetewu ko kaw kon na ngeen ko def ci sellal def ko ci muñ yonent bi bu masaana jiital euh, euh, soldaar yi pour ñuy xeex yi dana def discours aussi wax ne bu ñu dagg garab bu ñu rey mag bu ñu rey boroom xam-xam bu ñu rey jigéen bu ñu dugg itam ci dëkk rey ña fa nekk te ñooñu dara jotewuñu ak ñoom ci wàllu xeex li mu digle daal moo di ne nañu xeex ak soldaar yi nga xamante ni ñoo jóg xeex si waaw loolu la ñuy wax ne e, taal jihaad moo gën a yomb former soldaar bi ba mu am discipline def la ko war ci xeex ba te ci ëppal du ca def loo xamante ni bokku ci waaw kon daal jigéen ñi waruñu leen a rey ci xare boroom xam-xam waruñu ko rey ndax xam-xam nga dañu koy jariñoo mag itam amul kàttanu xeex waaw kon soldaar bi xeex rek la ñu war a rey waaw xeex itam mere ci xeex ba ñëw songub dëkk yàqaati dëkk ba daaneel néeg ya rey bay yaa xar ya fa nekk loolu lépp yàq la lislaam daf ko bañ moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa daan dànkaafu ay soldaaram ñu ne bi ñu jàkkaarloo nag nee na amoon na benn kuréel bu jóge ci yéeféer yi daal ñëw songu si malka moom nga xamante ni moom la jullit ñi duy ndox ba mu fees ñoom mar na nu mar gu tar ñëw di naan ca mbalka ma jullit ñi wuutee nar leen a rey yonent bi daf ne bàyyi leen leen ñu naan ndeke naan googu junj la yonent bi doon junj ne ku ca naan rek dee ña ca naan ñëpp dañoo mujj faatu ba mu des xakim ibnu xidaam moom rek moo ca faatuwul noonu ñu taxawee jàmmaarloo am na benn saxaabi benn yéeféer boo xam ne yéeféer yee ko yebal ne ko demal nga xool jullit ñi naka lañu taxawee ñaata fas lañu ñaata giléem nanu seen mbooloo naka la toll waaw ndax itam jaadu nañu xeex ñoom wala dañoo war a wàññeeku gis nga yëfiri ni ñu muusee ñu yebal waa ju ñu wax Umayr ibn Wahb bi mu ñëwee nee na leen jullit ñi ñetti téeméer leen ak fukk ak ñett ne itam ñaari fas la am juróom-ñaar fukki géléem la ñu yor mu ne leen wante yaa maachara Quraysh mu ne yéen ngir Quraysh dellu leen ngeen dellu Makka bañ a xeex ndax kat soldaar yi ma gis jullit ñi ma gis seen gëléem yi ña ñu sëf ay soldaar lanu yu nga xam ne ku jàmmaar la ak ñoom ñu rey la ndax kenn ku ci nekk yaa ngi fees dell ak tooke ñii ma gis de seen lim néew na wante seen kattan bari na kon nag suñu bëggee mucc nan leen fi bàyyi wacc leen fi ni yàq bu naqari dellu màkk sinon bu ñu leen attaqué daneen ñu jeexal kenn par kenn ndax kenn ku nekk ci ñoom am na njàmbaaru rey tëral fukki ponkal ci ñun mu ne xanaa gisula leen ñu ngi mel ni ay muuma ndax mer mu tar ñu ngi mel ni ay muuma ndax gëm gu ñu gëm yonent bi na tara alaa tarawnahum xurusan laa yatakallamuun yatalamma yatalammaduuna talammudal afaa'i mu ne xanaa gis leen leen ñu ngi mel ni ay muuma te itam ñu ngi ku mel ni jaani ñàngoor te giñ naa ci yàlla ne amul kenn ci ñun kuy rey ci ñoom te duñu rey ci ñun itam ay jàmbaar lañu nii ma leen gisee daal sama fit mayuma pour daal ñu xeex ak ñoom Umayr ibnul Wahb moom loolu la wax ñu yebalaat keneen mu di Aba ma ne ko demal nga xool ndax kii wax ak ñun daal ab buqat la bi mu ñëwee moom itam daf leen wax ne ra'aytu qawman laa yuriduuna rujuca ila ahlihim mu ne man de ñii mu gis dund ak dee lañu yemale xam naa ne sax kenn ku ci ne bind nga bàyyi bàyyee sa njaboot defar sa gannaaw wane ne doo dootoo dellusi seen bët yaa ngi bleu ndax mer mu tar kon nag li ma fi gis moo di ne nanu dellu suñu delluwul daneen ñu gañe moo tax xakim ibnu xidaam mi di kilifa ci Quraysh bi mu déggee ñaari espion yooyu ñu yebaloon mu di Umayr ibnu Wahb ak Aba Salama ci la xakim ibnu xidaam daa di nag waa Quraysh ne leen nan nanu dellu ci la ñëw nag ci Utbatu ibnu Rabia ne ko yaa abal Walid إنك كبير قريش والمطاع فيها هل لك أن تذكر بخير إلى آخر الدهر فقال وما ذاك يا حكيم بن حزام قال ترجع بالناس ñu ni Utbatu bnu Rabia Hakim bnu Xidaam dafa ñëw ci moom ne ko yow Abal Walid parce que Abal Walid moo doon dàkkantalam mu ne ko yow yaay magu Quraysh te itam kilifa nga boo waxee danañu la dégg xanaa bëgguloo am jaloore ju rëy taggu wa rëy woo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba ba buftu di wal mu ne ko loolu lan la yaa xakim ibnu xidaab mu ne ko xanaa nga delloo soldaar si màkk ndax jullit ñi ma gis bu ñu jàmmaarloog ñoom daneen ñu rey Utbatu bnu Rabi'a daal taxaw xutba xutba bu rëy daal wax ne yaa ma'shara Quraysh wallahi ma tasnacuuna shay'an an an tulqu muhammadan mu ne yéen ngir Quraysh giñ naa ci yàlla ne defu leen lu ëpp musiba jàmmaarloo Muhammad xeex ak moom mu ne ndax ay mbokki kese ñoo daje kenn ku ne ci yéen soo jàkkaarloowul ak sa wayjur yaa ngi jàkkaarloo ko bokkal ndey ak baay wala yaa ngi jàkkaarloog sa jarbaat wala yaa ngi jàkkaarloog sa nijaay kon ay mbokki kese ñooy xeex te itam bu ñu jàkkaarloo ba roofaloo ba xeex bu ñu noppee danga gis ku rey doomu baayam walla ku rey doomu ndeyam wala ku rey jarbaatam wala ku rey baayu boppam kon nag dellu leen Makka te ngeen bàyyi Muhammad bàyyee ko ki mbiram mu continuer diineem xëy na du ñàkk ëllëg ci arab yi dina am ku nga xam ni dana leen ko dumaal wante bu ngeen ko bëggee fajal seen bopp dafay nekk musiba bu rëy ndax ay mbokki kese ñooy xeex ay mbokke kese ñooy reyante bi mu ko waxee daf leen wax nag ne gàcce gu ci mënti am nen ma ko teg man Utbatu bnu Rabiha kon nag nanu dellu waaye bu ñu xeex foofu nag la ñu bari wax ne Utba daal dafa ragal ndax yéefir bu mag bu bon bi ñuy wax Aba Jahl bi mu ko déggee wax jooju dafa mer ni mu ñu meree daal di ñëw ci mbooloo mi ne leen ñun de ay arab lañu bokk ci giir Quraysh di ay jàmbaar suñu ñëwee ba fii delluwaat loolu dana nekk xas wu rëy ci ñun dana nekk gàcce gu rëy ci ñun daldi xëcc benn waay bu ñuy wax Amir ibn al-Hadrami mi nga xamante moom la ñu ca sëriyatu abdu di omar ibnu alxadrami te ci barab bu ñuy wax nax la la génnee ne ko yuuxul ndax arab dafa gëmoon li ñuy tuddee feru dima feru dima mooy arab boo masaana tuur deretu mbokkam loolu daf koy def ay wu rëy fokk mbokk moomu ñu tuur deretam ñoom danañu ko fayul looloo taxoon nag ci politique gu Abu Jahl mu ne Amir ibn al-Hadrami génnal nga jooy sa mbokk ma sa mbokk ma ñu rey te jullit ñee ko rey mu daal di génn nag taxaw ci kanamu yéeféer yi daal di yuuxu ne waa amra waa amra ba mu ko yuuxoo nag xol yëpp daal di sot xol yëpp daal di préparé wu waat na ma xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñu guuxaat beneen mer mu nga xam ne Abu Jahlin moo ko def ci ñoom foofu nag la jullit ñi nag def li ñuy tuddee munawasha munawasha mooy ñaari soldaar ñaari armée yu jàkkaarloo di wax te xeex amagul ñu ni bi ñuy def munawasha am na benn soldaar bu bu génnee ci yéeféer yi daal di ne moom daal dana génn pour dem ca maana mbalka mi nga xamante ni moom la jullit ñi defar pour dem naan ca gannaaw ba nga xamante ni yii yëpp am na wante lu jiitu kooku di dem am Omar ibnul Xataab amoon na benn jaam bi ci munaawasha bi bi mu génnee amir mi nga xamante ni moo di amir ibnul Xadrami moo ko rey kon Badar mën nañu wax ne yéeféer yaa njëkk a rey kañ fa njëkk rey jaam la ci Omar ibnul Xataab Amir mi nga xamante ni moom la ñu reyoon frère am ci sariyatu Abdullah ibnu Jahsh moo ko rey ci saasi ñu ne foofu nag ci diggante boobu ñuy defee mun naa wacca di wax di joxalante ay kàddu foofu nag yonent bi sallallahu alayhi mu ngi ci biir arisham te moo di mbaar mi ñu ko defaral saxaaba yëpp ñu ngi sàppe taxaw di déglu ndigalam diggante boobu nag nelaw këf na ko fi moom yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko nelaw këfee nag mu gam-gam le nelaw tuuti daa di yeewu ndax moom bët yeey nelaw waaye xol ba daawul nelaw foofu nag la ko yàlla won nag yéeféer yi ci biir nelawam ci gént mu won ko yéeféer yi tuuti lool ci nim leen gisee ci gént gi nee na tuutiwaay boobu nag bi mu yewoo lim ko fiire moo di ne tuuti gi mu gis soldaar yi yéeféer yi tuuti ko loolu moo koy wan ne ko amuñu benn njariñ loolu moo koy wan ne itam bu ñu xareek ñoom danañu gañe loolu nag yonent bi daal di jóg génn ci arish bi daal di ñëw nag wax ko saxaaba yi ne leen ah, yàlla wan na ma leen léegi bi ma nelaw kafe yàlla wan na ma leen wante nag ñoom tuuti nanu lool ni ma leen gisee loolu nag li muy wundu moo di ne e, bari nanu waaye amuñu kàttan waaw beñe la rek bu ñu bu gonfalewu da ngay foog ne ci ci biir dëll na fekk dara nekku ci moo tax mu ne Seydina Abu Bakrin moo nekkoon ak moom ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di génn wax ak soldaar yi tàllal loxoom nag daal di ñaan yàlla ne ko allahumma inni anshaduk ahdaka wa waadak allahumma in tuhlik hadihi al asabata al yawm fala tu'bad mu ne ko yow sama yàlla yow sama borom wala rek gi ma seq ak yow ak dig ba nga ma digoon maa ngi lay ñaan ñii kat tuuti nañu ñetti téeméer yi ak fukk ak ñetti tuuti nañu tuuti nañu lool wante ñooy sa njaboot bu ñu alkoo nag boo leen seetaanee ba ñu faatu dootoo amatiku la jaamu ci kaw suuf foofu nag am na ku ñuy wax aswad ibn abdil asad moom ab yéeféer la mooy ki ma doon junj léegi moom moo génn ci rangu yéeféer yi rek daal di wax ne uaahidullaha la ashrabanna min xawdihim aw la ahdimannahu aw la amutunna duuna mu ne fokk ma dem naan ci seen mbalka ma wala ma mabb ko wala ma dee wuute ko bi mu jógee armée wu nag wuti mbalka ma ne def daf cey naani Hamzatu bnu Abdul Muttalib mii nga xam ne bàyyi la ci yonente bi sallallahu alayhi wa di jàmbaar yi jàmbaar yi ba mu ko gisee muy ñëw daf ne kii daf ñu yàpp bi mu ñëwee jublu si ca mbalka ma Hamza daf ko kar wàññi ko mu bañ Hamza dóor ko benn tànk bi damm muy watatu ba agsi ci mbalka mi naan ci fa la ko Hamza fekk daal di koy rey kon gannaaw ba ñu reyee jaamu Omar ibnul Xataab ci jullit ñi yéeféer bañ ca teg moo di aswatu bna abdil asad foofu nag la ñu def li ñuy tuddee al mubaaraza mubaaraza nag moo di leewaatoo foofu nag la e, Utbatu bnu Rabia mi nga xam ne moo jiite woon xare bi di magu Quraysh moo génn daal di wax yëkkati kàddoom ci kaw ne yow yonent bi waaw ñoom sax daawuñu ko woowee yonent bi yow Muhammad lañ ko doon wax ne ko yaa Muhammad génneel ñett na ñett génn ci yéen ñett génn ci ñun ñu léewatoo mu am ñu génn ku ñuy wax awf moo génn ak ku ñuy wax muaz ak abdullah ibnu rawaxa wante ñoom waa medina leen ci waa lamsar la bokk bi ñu génnee Utbatu bnu Rabia daf leen laaj na leen mën antum yéenay ñan ñu ne ko ñun waa Medina lanu Utbatu bnu Rabia ne ne ne leen soxlawuma leen ñi ñu soxla moo di ay ñu bokk ci giir Quraysh suñuy mbokk lanu soxla wante yéen soxlawuñu leen daa di wax yonent bi yuuxuwaat baatam ca kaw ne ko génneel ñi nga fonk ñun ñu génnee ñu ñu fonk ñu jàmmaar loo foofu nag ci la yonent bi yebale nag Hamza ne ko jàmmaar lool ak Shayba Shayba tubnu Rabia ci la yebal nag Ali ibnu Abi Talib ne ko jàkkaar lool ak Walid ci la yebalee nag Ubayda tubnu Alxaaris ne ko na jàkkaar lool ko Utba tubnu Rabia leewaatoo boobu nekk leewaatoo bu metti ndax Hamdatu bnu Abdil Muttalib ci saa si la tëral Cheybatu bnu Rabia yàgguñu dara Seydina Ali mi nga xamante ni ñu ngi koy dàkkantalee Xaydara te Xaydara moo di gayndeeg njëloor gaynde goo xam ne kenn du ko suuru moom itam ci ay minit yu néew tëral na walit ci suuf mu des Utbatu bnu Rabi'a ak Ubaydatu bnul Xaaris ñaari mag lañu woon ñoom ñaar nag bi ñu jàmmaarloo ku ne jam na sa morom wante sayid sayiduna Hamza ak Ali bnu Abi ñoo gaawantu daal di ñëw yëkkati Ubaydatu bnul Xaaris daal di jekkale nag Utbatu bnu Rabi'a moo tax eh, ci mubaaraza boobu nga xamante ni moo di leewatoo boobu ñu fi wax léegi jullit ñi gañe nanu ndax yéeféer ya ñett ñañu yebaloon ñoom ñépp faatu nanu Utbatu bnu Rabia mi am na doomam ju nga xamante ni jullit la woon mu jarangu jullit ñi gis nañu tëral baayam rey ko wante itam ngëm gi nekk ci moom moo tax bu ñu jaawale nag yéeféer ak jullit jullit soo dee jullit su lislaam dee xare ba ñu rey ci sa baay te mu di yéeféer kooku dara nekku ci waaye nag ñaari jullit nag bu sa baay dee jullit nag sañu loo ko bañ sañu loo ko noonu waaw ko bañ ko noonu moo tax ñu ne Iblis fekke woon na xare boobu moom Iblis bokkoon na ci ñi doon dugal waa Makka pour ñu saa bu ñu demee ba nara a ci xeex bi Iblis daan na soppali ku jëmm yor jëmm Suraxatu bnu Malik waaw Suraxatu bnu Malik bnu Joxshum moom la daan jël jëmmam di ruux yéeféer yi nag pour ñu xare moo tax moom Iblis daan leen wax daan na wax ne laa xaaliba lahum min annaas leen wax ne leen yéen kat kenn mënu leen ci nit ñi yéen a fi ëpp doo yéen fi ëpp doole yéen fi mën kon nag bu leen bu xat ñu ne bi nga xamante ni yàlla yebal na malaaka yooyu pour ñu ñëw ndax wax nañu ne malaaka yi bu ñu ñëwul woon xare bi dana metti lool ci jullit ñi ndax ñetti téeméeri soldaar ak fukk ak ñett ak junniy soldaar ah dañ ne ñaar dañ ne eh, nu mu tooti ñaar du du ñett du bëri waaw ñaar a mën kenn te ñett du bëri te jullit ñi li leen yëfee yi ëppee bari na waaye ñaan gi yonent bi sallallahu ñaan tax na yàlla wàcceel ko soldaar yu bari soldaar yooyu nag ay malaaka lanu loolu lanu wax ne bi yonent bi toogee ba nga xamante ni songoo rekk ci des nee na am na ngelaw lu for lu upp nekkete boobu yonent yàlla jibril moo doon ñëw ànd ak ay junni ci malaaka ñu jékki-jékki beneen ngelaw upp ndeke boobu mikaali mikail moo doon ñëw moom itam ànd ak malaaka yu bari mu jékki beneen ngelaw upp ndeke moo doon ñëw moom itam ànd ak yu bari loolu la yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko iz taqulu lil muminina lil muminina alan yafiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min almalaika iz taqulu lil muminina alan yakfiyakum an yumiddakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min almalaikati munzili munzili munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrikum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi xamsati alafin min almalaikati musawimin yonent bi yàlla ngi koy fàttali ne ko métti woon na ba nga jaaxle lool fu ne nga fay xool di tàllal sa loxo di ma ñaan man nag maa la jox lu tolloog ñetti junniy malaaka yoo xam ne maa leen wàcce man yàlla maa leen wàcce ngir ne su ngeen muñee ngir ne itam su ngeen ragalee yàlla ba bañ a daw man yàlla dana leen dolliwaat yeneen juróomi junniy malaaka yoo xamante ni su ngeen leen gisee nañuy xeexe dangeen xam ne ñee ay malaaka lañu wante duñu ay nit moo tax am na benn waay boo xamante ni moo nettali wante ñu ngi jëlee nettali bi ci Abdullah ibnu Abbas nee waa jooju mu ngi bokk ci Bani Gafaar mu ne mu ne ñëwoon na keroog bi su Badar ànd ak benn doomu bay taxam ñu yëg ci ko benn montagne nee na jamono boobu moom yéeféer la woon doomu bàyyam boobu itam yéeféer la woon nee na ñu ngi taxaw ci kaw montagne bi di seetaan xare bi ñuy xool nag kan ma war a gañe nee na foofu ñu toog rek ci kaw montagne bi nee na gis nañu benn niir niir woo xamante ni nee na ñu ngi ciy dégg ay wayang wayangi fas di ca dégg di ca dégg itam nee na ay keleng kelengi weñ di ca dégg itam ay baat nee na ñu ngi koy dégg ci biir niir wi nee na naka laa gestu rek sama doom bay tax boobu nee fekk ko mu deese du guy nee na may xool niir wi di xool niir wi nee na ba gis niir wi teere ji ca yonent bi sallallahu alayhi ak i saxaabaam nee na may xoolaat niir wi niir wi di dellu si di dellu si nee na bi niir wi delluwaatee dem dégguma ca dara nee na loolu nag moo ma ne ma kon niir woowu moo doon avion bi nga xamante nii moo safoon malaaka yi doon leen indi ah, wante nag doomu bàyyi taxam boobu dee itam loolu itam junj la buy wane ne malaaka yee ñoo ko rey mu mel ni kon malaaka yooyu bi ñu ñëwee xeex nanu xeex bu metti xeex nanu xeex bu metti lépp yàlla nettali ko yàlla nee na yow yonent bi wa ma jaalahu llahu illa bushra wa li tatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min indi illahi al-azizi al-hakim li yaqta'a tarafan min alladina kafaru aw aw yakbitahum fa yanqalibu xaa'ibin moo tax yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bu ma la ko defalee dama bëgg rek bégal la looloo tax dama bëgg itam seen xol sedd seen xel itam mën a dal ba ngeen mën a am sago bu ngeen xeexe